bi الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi tàmbale sunu kàddu ci nuyoo ak ziyaar jiital ci alxalifatul am li muridin Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaanal ko suñu borom yàggal ko fi te mottali ay naalam waaye nuyoo ak ziar bi yëpp nañ jël ko teg ko ci loxol kilifa ak barab bi soxna maam Moussa Mbacke moom Cheikh Amadou Fadel mu jot luñu ko mbooleem njaboot gi nga xam ñoo ne ci gannaawam di nuyu baax sëriñ Fall ak njabootu sëriñ Alaaji Bousso Tamba gi nga xam ni tey ñoo waral ñu teew ci jataay bi di ñaan sunu borom lañ fi def ci ay ñaan lépp mu ful ko jotale ko ci waaye jotale ko ci mbooleem way dawlu yëpp te taasuñu ci seen barke te taxawu njaboot gi mu bàyyi gannaaw nga xam ne ni ñoo koy fàttaliku ci bis bi di sant bu baax ñi nga xam ñoom laa si jataay bi muy suñ Mouhamed ak suñ Omar Kane Balla Aïssa li nga xam ne ni moom la sëriñ booxoon ne bu ñëwee ñu tënk ci kàddu day jëm ci relation diggante biir njaboot gi maanaam ki yilif njaboot gi muy wajur ak ñi topp ci gannaawam te mooy njaboot gi topp ci gannaawam muy tomb boo am solo boo xam ne nag buñ koy waxtaanee ci jamono ji ñu toll nii war nañ ko tàmbalee ci ñaan sunu borom mu niital kilifa yi seenu yoon ñu toll ci jamono joo xam ne nii defe naa ne àgg nañ ci li ñu deseeku ci néew ci ay cëslaay ak i valeur ak i nattukaay ak sunu mbatit démb bërki démb ñu war koo yóbbu ci bañ ba ñuy wax roog seen ba dara duñ nga ba dara di ko foqal ñun ndax ñu ci diggante boo xam ne ni ñi ñu seqal àdduna te wax na ñoom ñooy borom doole yi dañoo taxaw temm ci far sunu ndono ñun sunuy cëslaay ak sunuy aada ak sunuy cosaan jël ñoom seeni ndono ak seen aada ak seeni cosaan ne mooy li ñu tudd ay valeur universelle te mooy cëslaay yi nga xam moom ñëpp war a bokk ñu fas ñu yéenee gàññu ko bëgg ñu dund ko loola nag di ko jaar ci fànn yu baree bari li ñuy bëgg a waxtaan tey muy njaboot relation bi nekk ci biir njaboot famille relation bi ci nekk nga xam mi ngi sukkandiku ci nangu kilifteef ak nangoo bokk ci biir njaboot gi bokk na ci cëslaay yi nga xam ne bokk na ci li ñu gën a xeex mooy doole ji famille amoon doole ji njaboot amoon ñu fexe ba wàññi ko ba effacé ko di ko jaar ci fànn yu baree bari da ngay dégg ñu waxtaanee ak ak yelleefu xale yi lu am solo la am nañu ak am nañu yelleef léeg dégg ñu waxtaane ak ak yelleefu jigéen wala sax ngay dégg ñuy waxtaanee ak ak yelleefu doomu aadama ci tënk te loolu lépp boo ko xoolee ba ca biir day am lu ñuy dëxañ ci biir su fekkoon dañu waxtaan ak yi ñu am rek loolu ku nekk xam na ne am nañu ak ak yelleef ñoom war sàmmal waaye boo ko jàngatee ba ci biir bu ci nekk dañ cey dëxëñ loo xam ne nii bu sottee ñoom seeni doxalin mooy not suñuy doxalin ñun tey buñ demee ba gëm loo ni bokk na ak ak yelleef xale ci misaal ñu ne kilifteef ak doole ji waajur amoon ci moom dañ koy wàññee jox xale bi doole ji xam ne nii bu waajuram naree jaar ak moom fenn fi mën na koo daal di dal ci kawam dal bu gaaw a gaaw loolu ku nekk xam ne day néewal doole kilifteef ak waajur ci biir njaboot bi te loolu am na benn benn dëkk yoo xam ne nii commencé nañ koo gis kilifteef gi nit amoon ci këram ci njabootam soxnaam nga xam dañoo autorité parentale nga xam ne dañ koo tegoon ci loxol baay bi ku góor ki léegi ñu ne autorité boobu dañ koy séq diggante ku jigéen ki ak ku góor ki loolu itam day dem ba néewal doole ki nga xam ne ni mooy waajur wi te waroon nag kilifteef benn lay doon buñ bëggee bokk mu jaar ci yoon kon waxtaane ak yelleef ji ñooñu am dara néew ci waaye nag fa amee jafe-jafe mooy su demee nag ba nar ñoo xañ sunu cëslaay yi ñu amoon démb ak bërki démb te njaboot ak kilifteef ak wormaal sa kilifa bokkoon ca loola. yi nga xam ne nii moom lañ war a sëq biir famille bi waaye du ñàkk itam ñu tudd lenn ci ay njuumte yoo xam ne nii ñenn ci boroom njaboot yi ñu ngi koy def te muy indi jax-jaxal ak yëngu ci biir njaboot yi léeg-léegi sax mu indi yar bu ñàkk a jaara yoon ci biir xale yi. loolu daañ ci tudd benn ngir ñu mën koo jariñoo ci jataay bi bu ñuy waxtaanee famille ci biiru askan mi ngi mel ni ab saal ci biiru meññet saal mooy cosaanul meññet naka noonu tam famille mooy cosaanu askan woo mënte gis moom mooy njëkk a jël xale bi taw aw maanaam aw ko taawu ko waaye itam defal ko lu ñuy wax socialisation te mooy génne ko ci bàyyi ma dugal ko ci ak nite ak nite kenn du ko judduwaale waaye nag dañ koy def ci nit way jur nag ak njaboot gi nag ñoom lañu sént jéego yu njëkk ci niteel doomu aadama ñoom lañ sént ñu def ko ci moom jaare ko ci sako seeni aadaak seeni cosaan yi amoon démb ba tax ñu am wàccuwaay bu am solo ci aveniru xale bi xale boo mënte gis personnalité bi muy am ëllëg ak melokaan bi muy am ëllëg li ci ëpp mi ngi koy jëlee ci biir njaboot gi nga xam ne nii fala yaroo moo tax jërul ngay laaj nit kan mooy waay juróomu góor ak waay juróomu jigéen waaye laajal ci gan njaboot fi la yaroo ku nekk boo xamee famille bi ko yar rek mën ngaa daal di xam yan jikko ak melokaan mooy ne ci moom moo tax jikko kenn du ko donn kenn du ko donn ci ndey ak baay waaye nag dañ koy def ci ñoom moo tax ndey ak baay luñ baax baax su fekkenteel xale bi dafa yaroo ci biir famille boo xam melu na war a mel bu màggee du mel na war a mel moo tax lépp solo kon mooy jur ak baay bu baay baay ak yaay ju mel nañ war a mel ñoom ñoo mën a jur wala boog toppatoo doom joo xam ba léegi dana mel ni mu war a mel. famille nag wala njaboon nag ku nekk xam na ni relation yi ñuy seq relation yi loo xam ne nii li ñuy wax hiérarchie lay doon maanaam day am ku féete kaw am ko ci topp am ko ci topp bañ àgg ca njobbaxtan la. muy relation boo xam ne day sukkandiku tam ci ñi séddoo warteef yi ci biir askan ci biir njaboot bi ku nekk am na taxawaay boo war a am baay am na taxawaay bu mu war a am ci biir njaboot gi yaay am ko doom am ko mag am ko rakk am ko kon séddoo gi ñu koy séddoo nag moo tax ku nekk am nga warteef waajur wu nekk wu góor wu nekk warteef la ci moom yu baree bari mu war koo xam te war a def lu mu man ba man koo jooxe ci njaboot gi bu ko deful nag bu ëllëgee bu ci yedd kenn bu yedd na tàmbalee ci boppam dafa am gan gu ñëw ci kër gi koo xam ne nii dañ koo war a bàyyi xel ci doxalin wi la ngeen daan séqi yéen ñaar bu njëkk dootu leen am sañ-sañu séqi noona baat yi ngeen di jëflante dangeen ngeen koo war di sàmm bu baax di ko tànn waratu leen itam di jàppante xuloo wala yu mel noonu xale bi di ko gis jokkalante kàddu yu melut na mu war a mel itam waru leen koo def xale bi di ko gis ndax xale bi day koppi rek lu mu gis rek loolu lay copier moom lay màggaale moo tax léeg-léeg bu fekkee da gis xale boo xam foo waxee gis mu dagg saaga jàppal ne fa màgge boo fa demee danga fekk ñuy waxtaane baat yu mel noonu kon xale bu nekk baat yi mu tàmm dégg ci biir njaboot gi moom lay wax fu mu mën di dem moo tax léeg-léegi nit bu waxee ambassadeur lay doon ci fam bàyyi ko léeg nga gis waajur yoo xam duñ bàyyi xel lu mel noonu toog nañ ci benn jataay ak wenn waajur wu jigéen doomam am lum def mu da boom dafa saaga dafa dagg saaga yaay ji daal koy daggal saaga ne ko doo bàyyi saaga ma ne ko du ko bàyyi ndax li fekk yaa ngi koy saaga yaa ngi ko koy jàngal du ko bàyyi moo tax baat yi ngay jëfandikoo dootoo am sañ-sañu jëfandikoo baat bu la neex war nga koy tànn sa wàjjur tam ameel na ak doom ji mooy mu teel koo tamal sàmmonteeg ndigal yi sunu borom yi waaye sàmmonteeg loi ak charte yi nga xam ne nii moo tënk mbooloo mam nekk war na koo tamal muy wormaal ndigal yi sunu borom yi ci jaamu yàlla yi julli ak lu mel noonu waaye itam tamal ko charte ak ak yelleef yi nga xam ñeneen am nañ ko tam mu leen koy sàmmal moo tax yonente bi alayhi salaatu salaam waxoon ne seen doom bu amee juróom-ñaari at na ngeen koy digal mu tàmbali di julli te su demee ba am fukki at na ngeen ko cay gën a ga gën ko cay soññ donte laaj na léeg ngeen jëflanteeg moom benn façon bi ngir soññ ko mu teel a tàmm julli mu ne nag suñ demee ba am fukki at ku ko man na nga leen tàqale buñ bokkati lal bu ñuy fanaan loolu nag góor ak jigéen a ci yem ak jigéen ak jigéen xale bu fekkente ne yàlla mën noo la ko am na at yoo xam buñ ci xasee toll ñaari xale buñ bokk benn lal fi ne bari na lu ñuy jàmbat ci ay jamono mu ngi juddoo ci ñaari yaram yuy jonjoo ci benn lal ci guddi loolu mën naa jur ay melokaan yoo xam ne nii yu safaanu lay doon moo tax yonent bi ne woon ku ko man soo demee ba say ay doom am fukki at nanga nga leen tàqale buñ bokkati benn lal bu ñuy tëdd moo xam ñaari góor la moo xam ñaari jigéen la kenn waxaaliwul nag góor ak jigéen warteef la tam ci waajur wu nekk muy sàmmal ak njabootam seen wér-gi yaram ak seen wéru xel wér-gi yaram mooy leen di dal ci ay feebar ak la leen ko mën a teg mu fexe ba dox seen diggante ak ñoom ba loola du leen dal waaye seen wér-gi yaramu xel seen wéru xel daf leen ko war a topp tool te mooy lépp loo xam day muur seenum xel mu fexe bañ sori lu mel noonu waaye itam àq la jum ameel njaboot gi ci ni muy jëf jëflanteeg ñoom mu doxal ci yërmande doxal yërmande diggante sa sa bopp ak sa njaboot àq la joo xam ne nii danga leen koo ameel kon àq la yu baree bari yoo xam ne dañ ci ñëwaat yoo xam waajur wu nekk ameel na ko ak njabootam buñ ganee àdduna njaboot gu nekk ku ca bokk ku nekk muy waajur yi muy doom yi ku nekk war ngaa xam ban taxawaay nga am war a am ci biir famille bi ba yàqu-yàqu bi ñuy séentu bañ a jóge ci yow xëy na nag bu ñu leerale nag yenn ci njuumte yi nga xam ne nii day am ci biir famille ku nekk danga ci mën a dégge jànge ci loo xam ne nii dana tax nga mën a sàmm sa njaboot moo xam doom ji la moo xam baay bi la moo xam yaay ji la kon bari na ay njuumte yoo xam ne nii mi ngi am ci biir famille di jeexital ci biir xale yi muy ay aspect négatif yoo xam ne nii mu ngi tukkee ci biir seen ñoom di dalaat ci kaw xale bi bi ci njëkk mooy njaboot gi jàpp gi mu jàpp ne daa moom xale bi xam nga ñu ñëpp dañuy jëfandikoo baatub sama doom sama ci wolof moo mel lay tekki bu ko defee nag ni ngay waxee sama téléphone sama oto sama kër di ko waxee sama doom bu yàggee da ngay jàpp ne ni nga moome téléphone bi moome ko kër gi moom nga moome doom ji loolu nag njuumte lu mag a la loo xam ne ni ñun ñëpp lay dal ndax oto beeg téléphone bi nu la neex nga cay soppaxndikoo kii nag moom boo dee jëfandikoo baatu sama tam jàppal ne ndénkaan la moomoo ko dañ la ko dénk te it nit la comme yow am xel moo tax doom du moroom waaye nawle la sa nawle la kon da ko war di bàyyi xel ci fànn ba kon mënoo koo moom ni nga moome sa jumtukaay yi ngay jëfandikoo moo tax gëstukat yi am na ci ko waxoon lu am solo daf ne woon day gisut mission bu gën a noobal ci àdduna nga amul njaboot formé leen teg leen ci yoon waaye nee na gisut tooñ gu gën a jéggi dayo nag nga jàpp amul njaboot jàpp ne da moom njaboot gi ba la neex nga ca war a soppandiko nee na loolu ak tooñ la ko jàpp moo tax lenn ci njaboot yi njuumte dana leen dal ci fànn boobu ba tax ñu jàpp ni xale bi dañoo ko war a sa jikkoy toroxlu ak tënku rekk doo am xalaat doo am dara bëgg tënk xale bi ci règle boo xam ne nii danga koy sacraliser te moom sax mën naa am règle boobu moom ci boppam xamu ko bañ koy tegit fekkiwu ko nga bëgg ko caa dundloo bëgg ko caa gàpp yenn famille da ngay gis dañuy aar doon ji kaaraange gu ëpp mooy li ñuy wax at tiflul mu dallal mooy xale boo xam dañ koy nengi nengal ba far kaaraange gi ëpp loolu njuumte loo xam ne yenn ñi dañ koy def ñenn ñi gis ne xale bi moom comme seen kanam la juddoo daal mënta doon mag mukk moom dañ koy jàppee xale fu mu toll te duñ bàyyi xel ci ne at yi ni muy doxe noonu la ay melokaanam di soppi ko yenn famille daanaka kaso lay doon cib xale mooy njaboot goo xam da ngay jàpp ne xale bi wërta laal suuf wërte génn wërta fay wërta wax ak kenn fu mu daal dafa war a nekk ci diggante waajur ak baay ak yaay ji ñu koy neng-nengal ak yu mel noonu su ko defee nag ñoom dañuy jàpp ne lépp loo xam jàpp nañ ne war naa metti ci xale bi dañoo war a dox digganteem ak moom kooku li muy jural xale bi mooy ni mu waroon a màgg ci biiram personnalité bi mu waroon a am ni mu waroon a feeñale jëmmam da nga ko koy xañ moo tax léeg-léeg gis xale bu màgg ci biir njaboot day màgg ba noppi at yi bari mu mel ni xale bu tuuti du mënal boppam dara ndax ma ngi ko tàmmee ca biir nengi nengal gi ñu ko doon nengi nengal famille itam li ma waxoon léegi dañuy jàpp ne xale bi fu mu toll rek ab tuut tànk la boo xam ne nii moom du soppi ku mukk te duñ bàyyi xel ci ne am na foo xam bu fa àggee jeneen jëmm lay doon dunduk nit dañ koy séddale étape am na ci étape bu ñuy tuddee muraahaqa mooy adolescence toll ci fukki at ak ñett jëm fukki at juróom-ñett ba jàpp ñaar fukki at foofu bu fi xale tolloo sopp ko yu gaaw day feeñ ci moom ci yaramam ci ay doxalinam ci xalaatam ci léppam da ciy feeñ loolu nag boo ko bàyyiwul xel da ngay jàpp ne xale ba ma yoroon démb ak bërki démb moom laa yor ba léegi moo tax baraana famille boo gis mu am problème ci biir njabootam mu ngi ko dale ci diggante boobu ndax da bàyyi xel ci ne xale bi foofu ba fi tolloo fépp da koy yomb bu fi tolloo yëg boppam da koy yomb bu fi tolloo bëgg a wane boppam da koy yomb bu fi tolloo maanaam kilifteef nangu ko lekk léeg daf koy jafe waaye diggante bu gàtt lay doon bu weesoo da koy wees boo ko xamul nag baraan na ñoo xam seen famille am na jafe-jafe te mi ngi tàmbale ci diggante fukki at ak ñett ak fukki at jàpp jàpp ñaar fukki at boo ci bàyyiwul xel man xale bi sax mën na cee yàqonte yow bari na xale yiy fàq génn seen kër diggante boobu lañ koy defee ndax seeni waajur ni ñuy jëflanteeg ñoom duñ bàyyi xel ci nag kañ gisoon démb ak bërki démb am na ay soppiku yu gaaw yu dugg ci moom. kon famille bi jàpp ne moom xale bi dañ ko war a neng nengal ba dara du ko laal ci njuumte la nekk waaye itam famille bi jàpp ne maanaam métit rek lañ war a jëfandikoo ngir xale bi jaar yoon moom itam ci njuumte ci lañ nekk kon digg doomu mooy li ñu sàmm foofu. njaboot yu bari danañ juum ci ne xale day ñëw juddu ci biir mbooloon ci njaboot bi nga jàpp ne yow profil bi nga am moom la xale bi am te bokku leen profil profil mooy maanaam xale bi ni war a mel ëllëg ñun dañoo jàpp ne man su fekkee jàngalekat alxuraan la par force sama doom jàngalekat alxuraan war a nekk su fekkee ab sëriñ la par force sama doom dafa war a nekk ab sëriñ te lu ci nekk profil la mën ngaa doon jàngalekat alxuraan sa doom mën na am maçon profil maçon wala profil menuisier wala profil tëgg wala yu mel noonu boo ko forcé nag ne ko par force jàngale ko alxuraan ngay doon dugal nga ci échec day yonjox naka noonu tam kon xale bu nekk am na profil lu muy maye waajur wi nekk daf koo teel a daf koo war a teel a xam war koo teel a seetlu kon bul jàpp ne man ab sëriñ laa par force sama doom dafa nekk sëriñ jàngalekat laa par force sama doom dafa nekk jàngalekat tëgg laa wala wuude laa par force sama doom loolu lay nekk loolu njuumte loo xam ne nii waajur yu baree ba dafa leen dal te dana yàq ci avenir xale lu baree bari moo tax boo amee xale deel xool ay xalaatam de ko dee ko seetlu boo ko seetlu da nga gis maanaam fan la gën a màcc jëm yan la gën a yittewoo nga teel di ko ci jàppale te xam ne loolu mooy profil bi nga xam ne nii moo ko mooy mbiram ñun fii da ngay dégg naan da nga mokkal alxuraan baa nga dee moo tax da la gis xale buñ ci lor lor te du tax mokkal alxuraan la ci ak yeneen fànn yi bokk na ci njuumte yi nga xam ne itam léeg-léeg danay am suñu biir fami mooy ñun xale bi ñu fonk mooy xale boo xam loo wax mu ne waaw xale bu dul wax déet mukk kooku moom dong lañuy fonk te moo ne mën naa am kooku fi mu nekk ni faiblesse la boo xam ne nii ëllëg si biir day feeñ ci personnalité waaye xale bi nga xam boo waxee mu teg ci baat dañ naan kii dafa réew dafa kii te fekk na kooku mën naa am personnalité mooy tàmbali di feeñ fi ñaari xale yooyu bu màggee ki nga gisoon nga xam lu ñu wax mu ne waaw rek ñaare fu mu toll dañ koy yilif maanaam du am personnalité bu dëgër boo xam ne nii mooy tax mu mën a fël nekk ci kanam ka doon wax déet nag léeg-léegi ñaare mooy fël ne ci kanam loolu tam waajur yi baree bari ko bàyyi xel mooy léeg-léegi xale dana nangu nangu goo xam ne nii war ngaa ñaaw njort ci moom gëm ni kii kat nangoom gii kat maanaam ëllëg mën na koo jural faiblesse ci kanam ay moroomam bu waree fël du mën a fël xale bu def njuumte nga teg ko ci kanami moroomam xas ko xas yu metti wala nga dóor ko dóor yu metti loolu am na lu muy jur ci xale loo xam ne ni sa lay doon goo xam mën na koo topp ba jeexi tal ci moom moo tax gëdd xale ak xas ko ci kanami moroomam waajur wu nekk daf ko war di moytu waaye nag am na beneen bu njuumte boo xam ne ni dana ñuy dal ñun fii léeg-léegi sa doom day judd man dama ñuul yaay ji ñuul xale bi judd xees becc nga daal di commencé ñu commencé wokkante bëgg a ñaaw njort ci xale bi loolu njuumte lu mag a mag la loo xam ne nii danañu dal ñun ñëpp ñun ñaare sa doom bu ñëwee melut ni nga mel rek nga daal di bëgg sikki sàkk ci moom te loolu boroom xam-xam yi gëstu nañ ci ba gis ne am na lu ñuy te al kumun al wiraasi yi mooy ndono léeg-léegi dafay nëbbu ci ab diggante maanaam man nga am ci say maamaat yu njëkk ya ku ca xeesoon pecc ndono loolu day ñëw nëbbutu ci biir maam yi mujj jekki-jekki fëll ci benn xale xale juddu xees pecc fekk ne ñaari ñum juddoo moom dañoo ñuul bu ko defee nag boo sikki sàkkaa ci moom ci askanam danga koy daal di tooñ tooñal gu mat sëkk te ku nekk xam na jafe-jafe mi nekk ci sikki sàkka ci askanu ab xale ak li muy mën a jur ci moom ëllëg moo tax ñun suñu njaboot yi ñu baree bari ñun dañuy rey don bi nekk ci xale xale bu nekk buy juddu am na don bu muy judduwaay lu ko yàlla may loo xam ne nii buñ ko sàmmee mën naa koo jural lu rëy rëy waaye nag ñun ki ñuy tudde xale bu dooj dañ koy saboote saboote ba dootu ñemee fésal ay mbiram te moo ne maanaam dooj googu mu dooj maanaam don la bu ko yàlla may boo xam dañ ko waroon a jàppale ngir mu fël kon xale bi dooj dañ ko war a encadrer di ko toppatoo ngir am ne xam ne ëllëg mën naa nekk borom personnalité bu mag a mag bokk na ci njuumte yooyu itam léeg-léegi muy am ci famille yi nga xam yàlla day def ñu tàqali ko tey ndey ak baay bu yàlla dogalee ñu tàqali teñ te amoonu njaboot léeg-léeg ngis yenn waajur yoo xam dañu naan xale bi doo dem seen kër yaay walla yaay jutee ay doom ne leen du ngeen dem seen kër baay te xamuñ ne xale bi dafa soxlawoo santiment wu yaay ji waaye itam noonu la soxlawoo sentiment baay bi boo ko ci xañee benn rek mën naa jur ay njuumte yu baree bari ci xale bi ëllëg ak si biir léegi rek bi may ñëw maa ngi ciy liir koo xam mi ngi ciy wax mu ne xale bi nga xam ne nii moom dafa tàqal ko waajuram gisul baay bi gis na ne xale yooyu dañuy agressif maanaam dañuy nit ñoo xam dañu doon daal dañuy gaaw a tàng gaaw a mer léeg-léegi sax mën nañoo wëlbatiku daal ci seen yaay ndax lim leen xañ gi ñu leen xañ cofeel gi waroon dox seen digganteeg seen baay kon loolu itam ci njuumte yi moo tax ko bu amee njaboot gi ci juddoo war nañ leen a may ñuy am gis seen ñaari waajur yëpp bu ñu soxlaa gis seen yaay dem gis ko bu soxlaa gis seen baay gis ko bu ko defee yëg-yëg boobu di màggaale ci seen biir leleen nga dégg koo xam ne nii danaan jamono ji moo yàqu kenn mënut a yar xale loolu du lay léeg-léeg nga dégg ko naan xale yi ñoo dëgër bopp léegi ba kenn mënut leen yar loolu du lay bu la wóoree ne yow xale mënoo koo yar mënoo koo toppatoo kon danga koo war a am ndax kat sëy sàtt la ci nga mën a saytu njaboot boo ko mënul takk soxna waru la kon njaboot gi bu juddoo amatoo lay ci ne jamono walla xale yi wala yi mel noonu léeg-léeg sax ñoo xam dañ naan daara yi ak école yi ñoo yaratu ñoo jàngaletu nang mag nang bëgg leen koo jiñ ku nekk bëgg a faxas say loxo ba mu set wécc ci responsabilité bi daal ne man daal ooma pexe loolu nag moo jur lu baree bari moo tax waajur yu baree bari dañoo na ci seen responsabilité parentale bi nga xamoon moom amoon loolu nag bokk na ci njuumte yi nga xam ne nii moo jur lu baree bari ci li ñuy jàmbat ci jamono ji moo tax lislaam lim santaane mooy bala ngaa takk soxna am na warteef yoo xam dafa war a am ci yow ñu door a fas soxna ci wàllu at ci wàllu xel ci wàllu mën a saytu njaboot ci fànn yëpp boobaa na ñu door a waxtaanee mbirum soxna waaye nag ñun dangay gis ñaar ñuñ mayante ñu war a amul njaboot te kenn tëniwu ca moroom ja am na lu ma ci ma sa teewe lu xaw a xoromu ñaari koo xam dafa amoon soxna yóbbu ko ci barab bu xaw a sori doon fa liggéey yóbbu fa soxna si léegi nag ñu am doom bi ñu amee doon ñàkk guñ ñàkk a ñor xale bi di jooy di jooy jooy yi metti lool ba mu yàgg yaay ji tàmbalee jooy ba mu yàgg baay bi tam tàmbalee jooy ñoom ñaar ñëpp ñuy jooy jooy na xale mi am ko lu ñàkk a ñor la ndax yéen a war a defal xale bi mu noppi waaye amul leen ñor guñ ko mën a defale ba xale bi noppi loolu kooku ñooña maanaam am doom daf leen a waragul kon warteefu am doom am na nit ki sart yi war a daje ci moom ak njaboot door a mën a soq koo ci moom koo xam ne nii lañ ci bëgg ëllëg daañ ko ci mën a séntu kon daal loolu lenn dañuy war a sàmmanteel kon famille njaboot mooy dajaloog mbooloo gi njëkk ci askan moo ëpp solo tam ci tabax personnalité xale bi taxaw taxawaay bu am solo ci sàmm ndono ak di ko tuxal muy jaar ci maas bi di jàll ngir famille bu nekk nag mën a taxaw taxawaay ba mu war a taxaw relation ba war ñu war a séq dafa war a tegu ci cofeel dafa war a tegu ci respect mutuel mooy ku nekk jox cër sa moroom baay bi xam warteefam te di ko taxawe ku nekk ci biir famille bi tam xam sa warteef di ko salaam sëñ Mouhamadul Fadal yal na yàlla sàmm la ta taxaw la te gën a yokk xam-xam bi dañu gën cee jariñu ci barki Cheikhul Khadim Omar Kane mi nga xam ne moo war a wax ci waxtaan ci ki nga xamante ni moom lañuy ñuy ñaanal tey muy sëriñ alxaaji bu sa tàmba rahimahullah bismillahi rahmani rahim sallallahu ala muhammadin bi ci fasaxati lisaani habli fasaxatan wa nawirana xaqli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 nu jiital ci kilifa yoon wi cheikh mouhamadul muntaxa mi toog a jataayu xadimu rasul di ko ñaanal sunu borom gën ko fee yàggal te dolli ko ak wér te wéralal ko ñi ko wër noo ngi siyaar njabootuk cheikhul xadim gépp di yeesalaat sunu njébbal tey feddali sunu kóllëre di siyaar njabootug sëriñ Afiya Buso njabootug sëriñ Ibrahima Buso njabootug sëriñ Mbàkke Buso ak gédé gépp di siyaar sunu mbokk yi waa kër sunu maam Birahim Njaay ak mbokk yi ne ci tund bi yëpp loolu mu doon waxtaane rek moom la ñu war a teg ci sunu kanam di ko jàngat benn benn ndax ni mu ko waxee noonu lislaam yi seen yéene moo di soppi ndaw ñi ak jigéen ñi te bari nañuy pexe bari nañuy moyen te fu ne ñu fay jaar danañu féef danañu këf danañu fëkk te li ci ëpp li fiñ ko gën a jëmale mooy jigéen ñi ak ndaw ñi mu waxtaane nag lu am solo lu mat a bàyyi xel muy jëmmi doom aadama étape yi mu am wolof day wax xale di wax gone di wax ndaw lenn lu ci nekk ak ak ak fi jëmm ji tollu xale li feek ànd li feek xàmmeegul li feek xàmmeegul xale lay tuddu bu demee ba xelam na ci xàmmee gone lay tuddu bu demee ba weesu foofu ndaw lay tuddu moo taxoon Serigne Touba gone gi feek amagul juróom-ñaari at ku ko xañ nguur dajeek buur bu amee juróom-ñaari at ku ko def buur dajeeg buur bu ca juróom-ñaari at tegee bàyyi ko boppam lu mu def dajeeg buur moo tax yooyu doon yu am solo li nu ciy bëgg a waxtaane nag ci la ñuy xamee ne sunu mag ñu baax ñi fi nekkoon ñoom naka jekk loolu dañ ko bàyyi woon xel bu nu seetloo borom bés bii ak waay juróom ñu baax yi nañ nekk woon ak moom ba tax mu tege ci yoon wi mu tege ba jëf fi li fi jëf bàyyi fi li mu fi bàyyi danañu xam ne ñoom way juróom ya xàmmee woon nañu état bi jëmm ji doomu di toll mag ñi wax nañ ne gone këyit gu weex la lu ci ne sëriñ daar yaa ko ci bind moo taxan mu ne seetlooti leen baatab gone junjub wolof la mooy ku ne mënees na caa denc lu ne rawante naag mbirum jullit mag ñi nag loolu dañ koo xaman bàyyi woon ko xel lool kii nu bëgg a waxtaanee di koo xam ne mbokkum ñu baax ñëpp la ab jullit la ab morit la ab citoyen la muy sëriñ alxaaji Bousso Tamba moom sëriñ Ibrahima Bousso moom sëriñ Bousso be ak soxna Faat Ñang nit danañ ko xamee ci ñaar nit danañ ko nawe ci ñaar waaye nit danañ ko wóoloo ci yennat nit danañ ko xame ci ñi ko jur ak ñi ko yar danañ ko nawe ci ñi mu jur ak ñi mu yar danañ ko wóoloo ci ñi muy jaxasool moom sëriñ alaaji Buso ñaar ñi ko séq ñooy réew mi te ci seen diggante la yaroo kon moom manees naa xam ñi ko jur ak ñi ko yar waaye manees naa xam itam lenn ci ñi nga xam ne tàmbali naa jaxasoog ñoom kon moom ñi ko jur ñoo ko yar ñu ne kon ñan ñoo ko jur waaye juróom bu góor sëriñ bi juñu ne ko léegi muy sëriñ Ibrahima Ibrahima Bousso doomi sëriñ Bousso be ak soxna Mati Ñang nga xam ne mook sëriñ Afiya Bousso ak soxna Awa Bousso ñoo bokk lépp waaye juróomu jigéen di soxna Faat ñaŋ doomi maam Góor Saane ak ak ak soxna Astu mii xeetu Seexul Xadim Góor Saane ñaŋ maam Góor Saane Ñang ak sëriñ Mudu Faa Jama Ñang ak maam Njóogu Mati ak maam Lamin Mati ñoo bokk tafsir tafsir baara xuli ji soxna Astu gannaaw maam góor saane ñang dañ ko jox sëriñ daam abdourahman loo mu am ci baay sëriñ loo boo demee ci marsiyab sëñ abdourahman loo bi sëriñ Moussa Ka def sëñ Moussa Ka ma ngi cee wax naan sëriñ Bamba dellu ko jébbal soxna ayi satin kookaa di meenum sëriñ Touba fa diiwaanaa gànnaar la Bamba bindab leetar ba jox ko Omar ne yàlla moo digle seenu ànd diiwaanaa kookaa fa taawloo sëriñ loo dal di génn këram Cheikh Abdou tudde borom saam fey na borlaanaa moo taxit sëriñ Moussa Ka di wax ci sëñ Daam Abdourahmane loo naan moo denc bàjjan ba dencaat doom ja denc rakkam moo doon xar baaxi suunu rëy ni Ousmana soxna si mu denc ak njabootu sëriñ Tuubaa gi nga xam denc na leen looloo taxoon sëriñ Moussa Ka wax loolu sëñ Dame Abdourahmane loo kooku mooy maam sëriñ kooku mooy maam yi sëriñ Ibrahima Bousso mii bàyyi alhaaj sëriñ alhaaji Tamba sëriñ alhaaji Tamba Bousso nii la bokkee réew mi mi ngi gane jamono ci gede bu Bousso ci jamonoy 1929 ñu tudde ko alhaaji ñu bari dañuy wax ne sëriñ Mbàkke Buso lañ ko tuddee la ñeneen ñi ci des di wax na sëriñ Fàllu Buso sëriñ Fàllu Mbàkke lañ ko tuddee waaye ñoom ñëpp boo ko dee seetlu Tàmba gañe na leen ndax lam fa nekkoon ak nam fa nekke woon ba Tàmba féetewoo ko loolu dana lu ci dellu si waaye dañu dellusiwaat rek ci way juróom Serigne Ibrahima Bousso mi nga xam ne doomi sëriñ Bousso be la te sëriñ Bousso be nekkan kenn ci sëriñ bi di kenn ci góor yàlla yi ku ràññiku di borom wilaaya di ko am ijaaba di koo xam ne digganteem ak Serigne Touba lu yéeme woon la mooy koo xam ne waa këram ñëpp jébbale na leen Serigne tubaa ba Serigne wax ne Serigne Mboussobé ku ma noppal la ndax dab yi ma andil yëpp da leen a raxas ba ñu set mu door leen a andi Serigne Mboussobé Serigne Bassirou Mbacké nee na wa kaana sayxan jalilan wa aaliman mutafanninan nabilan taahiral xalbi tayyibal axlaaqi mardiya siyami sëriñ Basiru nee na sëriñ bu soobee doonal na sëriñ bu màgg di boroom xam-xam bu bari ay ay xeeti xam-xam di ko yewu di ko laab ab xol di ko rafet ay jikko di ku ñu gërëm ay meloom kooku mooy way juru sëriñ Ibrahima Bousso moo dëkkoo soxna Mati Ñang jaax réew ba am ci soxna Awa Bousso ak sëriñ Afiya Bousso ak sëriñ Ibrahima Bousso sëriñ Ibrahima Bousso gane jamono naawel diggante 1875 la ñu wax ak 1880 diggante boobul ci la feeñ bàyyam moo ko dalal alxuraan jàngal ko ab diir gannaaw ba mu dem ci sëriñ daam abdourahman loo àggale fa njàngum àggale fa am njàngam teel watu alxuraan lool te rafet loxo ko rafetoon loxol mbind la gannaaw ba mu sóobu ci njàngum xam-xam ba sori ci lool tàmbali nag di jàngale alxuraan ak di yare di bind ay kaamil bokk na ci ñim jàngal sëriñ Mawlaaye Buso moom sëriñ Mbàkke Buso ak sëriñ Muduma Sàmba ak sëriñ Omar Mbàkke mi dëkk Mbàkke Bawal ak ñeneen ñoo xam ne moo leen jàngal ba ñu wattu diggam ak sëriñ Tuubaa moom sëñ Ibrahima Bousso ñu ne moom nag ku teel a ànd ak sëriñ bi la ni ko doomi sëriñ Bousso bi yëpp defe wax nañu ne sëriñ Touba daana wax ne sëriñ Bousso bi day lu mu jur rek jébbal na ma ko muy góor wala jigéen moo tax sëriñ Ibrahima mii daa xàmme rek tàbbi ci loxoy sëriñ bi moo ko tarbiya moo ko tarxiya ba def ko murit saadix te loolu sëriñ bi moo ko seede ndax dafa am bés mu siyaare ko bay dem sëriñ bi wax ne moom day murit saadix la fu sëriñ bi mos a nekk ci réew mi ak gànnaar nekk na fa ak moom ba xomaak sax dem na fa sëriñ bi di ko tarbiya ci jaamu yàlla ak liggéey di ko binduloo ay kaamil ak xasida ba def ko majsuubun saalikun majsuubun saalikun moom la ko Sëriñ Tuubaa defoon defe naa ne loolu euh, ahlu tasawuf yi ñoo may gën a dégg ñaari baat yooyu waaye sëñ Ibrahima majsuub la woon saalik la woon te loolu feeñ na ci ak dundam feeñ na ci ay waxam ni mu fanke woon ay ay kilifaam ak ni mu doon jëfe seen ndigal moom këram ak njabootam amu ci woon ab dogal ay turi doomam lu ci bari sëriñ bee ko daan tànn bi nga xamee ne sëriñ bi jox na ko ndigal mu dëkk Guédé Bousso ci wetu magam ju baax ji sëriñ Mbacke Bousso booba la wax ne dootul weesu sëriñ Mbacke Bousso di laaj ji aw tur ngir doyloo ko muy kilifaam bokk na ci li wone pastéefam ak ku bëggam sëriñ bi saxalan na bisu àjjuma ju ne mu jóge gédé gi ñëw ci barabub sëriñ bi wàcce fa ab kaamil te wax nañ ne bu daan ñëw bu tolloo ay nu rahmati rek lay summi ay dàllam door a wuti barab ba ak jàng fa ab kaamil ak taalibeem daal lu koy woon la ndax dafa jaayoon li mu bokk ak sëriñ bi jënd ko ak taalibe parce que fam boobu nag baat bi nga xam ne fii jamono tellu tey boo ko waxee rek am fu ñu la féetale moo tax am na ay jamono man sama liggéey moo doon ñaan yàlla rek ñu bañ a daan Pastef ndax mag ñi lépp lu ñu mës a def ci Pastef lañ ko teg bu jamono yeggee foo xam ne nag boo nee Pastef ñu am bët bu lay xool loolu kon jaral na ñëpp jóg taxaw ba Pastef bañ a daanu ndokk yàlla bi Pastef daan wut ndax Pastef nga naa la loo xam ne ci la mag ñi nekkoon di ci def lu ñu daan def ku am Pastef dong lañ mës a waaye ma dem naa ba seetlu ne ku yaafus rek mooy contre Pastef yàlla dogal na loolu moom sëñ Ibrahima Bousso mii ko amoon Pastef la boo xam ne Pastefam dafa ràññi ko woon ci ñim nekk lan ñëpp moo taxoon sëriñ bi waxoon ko mook moom ak Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina ak sëriñ Mor Bousso mbakke moom boroom saam ne leen na ngeen wëllërante ndax seen àjjana ya sa sasaloo xool nga loolu liñ ci mën a jëlee sëriñ Ibrahima Bousso ak sëriñ Mor Mor Bousso Mbacke moom moom maam Mor Diarra ñoom la waxoon ne leen na ngeen na ngeen wëllërante ak maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina ndax seen këri àjjana ya ñoo sosaloo te it te yetti at laa leen di jiitoo loolu la leen sëñ Tuubaa waxoon moom laa leen di jiitoo àjjana moo tax ñoom ñoo bokk wenn weer menn at tam xar tam sësin 1349 foofu mooy at mi nga xam ne ñoom ñett ñëpp ci at moom lañu gën a àdduna ñu ne lan moo di ay jikkoom ay jikkoom nag moo di ragal yàlla ak sàmm ak tabe bëgg ay bokkam moo xam mbokkum deret la wala mbokkum diine moo tax mu bari woon ay turandoo eh, bu ne jikko jikko lu doy waar la ci doomu aadama li taxan nit di taamu nit di ko jox doomam baat boobu nga xam ne tekki na boppam jikko mooy jikko rek jikko li ne ci yow jikko ci moom baatub jikko ma am na mag mu wax ne dees na ko donn dees na ko nàmp dees na ko faggu waaye it dees na la ko wàll dees na la wàll jikko jooju nag moo tax lii Sëriñ fal bu saasan doon waxtaane léegi nu war cee bàyyi xel bu baax ndax wàllante moom ci jaxasoo dong lay lay amee kon li tax ñu bëgg nit di teel jublu ci njabootam ba kenn du ko mën a wàll lu lu mat a bàyyi xel la am na maam mu baax mu daan wax suñ daw di suñ daw diggéey njombaan dafa nekkoon muritub suñu Abdoulaye Diop Yakhine ay doomi baayam nekk soowu jant yàlla defar leen tawféex lool saa yu ñëwee saa yu seen ba seen doy baay yooyu jógee ci dëkk ba ñëw ñëw jógee sow ñëw ci dëkk bi day gis ci ñoom loo xam ne dañ leen koy ñee te moom mi ngi ci daara ji nee na mu tàggu fi Ablaye Yaxin ne ko damaa bëgg dem sow mu ne ko dégg naa ko bàyyi ba ca déwén mu waxaat ko mu ne ko dégg naa ko ba mu yàgg lool sëñ Ablaye Yaxin woo ko mu ñëw ne ko yàgg nga maa tàggu dem dem sow jant dem ma di la tere ma di la tàngamlu tey nag kaay mën naa laa bàyyi nga dem xam nga lu tax ma doon la lu tax ma doon la tàngam lu mu ne ko xaw ma ko de mu ne bi may bi may tàggu këriñ nga këriñ nga te këriñ weesu te boyal dama laa dama laa téye ba nga doon dóom ma soog bàyyi ngay dem léegi fu la neex dem koo lekk koo nekkal mën nga ko soppi waaye yow kenn mënatu laa soppi noonu la ma ngi doon taxawoo seen njaboot. bi sëriñ Tuubaa wooyee sëñ du mustafaa ak sëñ Fallou ak sëñ ma Massamba ak sëñ moo roq yëbu sa ci yéen wax leen lan ne fa moom nga xam ne bari na ñu koy baamu du ma bàyyi kenn du ma magi kenn du ma nijaayi kenn li ne fi man alali yàlla la wax nañ ne sëñ Fallou daa jóge ci jotaay ba ñëw nettali ko sëñ Ibrahima Bousso sëñ Ibrahima Bousso ne ko laggal jébbalu ji ba mu jébbaloo ca la woye woon yaa ayyuhaa sayxunaa fi sul murtajaa waaye bàyyi sëriñ bàyyi sëriñ jotara nee na ma da caa teg nag woy sëñ woy sëñ Ibrahima Bousso defal sëñ sëñ Ibrahima Bousso ay bayit loolu bi ma gisee bayit yi nga xam ne moom la sëñ Fallou woy sëñ Ibrahima Bousso ci la saam xel dama ci loolee ma bàyyi sëriñ Jatra waxoon sëñ Fallou dane samiyu xalilillahi xayru wa hubbi lahu ma istu xayru dalili xayru xalili tajammala bi taqwa wa kulli jamilatin biha naala fi l asmaani kulla jamili iza saara dayful xaala ahlan wa marhaban wala yastaki imbaata baada maqili te li mu wax njaboot gi da ko bind ci suuf mooy koonoo ka seyxi Ibrahima Fall loolu la mujj wax njabootam bind ko ci suuf koonoo ka seyxi Ibrahima Fall roy leen Seex Ibrahima Fall ci ak taalibe loolu nag moo nuy xamal ne Serigne El Hadji noonu rek lay mën a mel nee la moom ginnaaw bi mu feeñee jamono ci nii ma la wax ñi ko jur yar ko mu jàng alxuraan gade jóge fa dem mbos mbos la dem ci nijaayam Serigne Baba Ñang ko bari woon xam-xam fa la nekk ba jóge fa dem Tamba Serigne Fallou Mbacké naw ko lool ci aw doxin ak ku jëfin ba yëkkati doomam ji nga xam ne doomi la ngir la soxna maam Boussa Mbacké yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal te dolli ko ak wér di delluwaat de santaat sunu boroom rek di ñaan sunu boroom defal nu tawféex maa ngi ñaan li nga yéene ci bés bi yàlla may la nga nga nga yàgg ak moom lool ba am ci lu ko sa njort di siyaarewaat sa kilifa yu baax yi nga fi nekkal Sëriñ Fàllu nga xam ne moom itam sunu jawriñ la sunu kóllëre la waaye ku nu bàyyi xel la أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله العظيم yéen mbokk yi jullit yi mbokki taalibe bi ñu leen di ziyaare ku nekk ci turam ak santam ci barke suñu sëñ bu baax ba di alaaji Tamba Bousso waaye di siyaare waa Mbàkke ak waa Mbuso be daana may wax ne malam ne waa Mbuso be <coughs> ñooy pekkub sëñ Tuubaa fàttali gi ma njëkk a fàttali sama sëriñ mooy euh, dem gi mu dem bàyyi ñu fi te koro ba nga xamee ne bii euh, mu ngi wujju borom sama sëriñ dafa ne àndal ak sëñ Euh, euh, sëñ kii euh, jaxate bi nekkoon hmm, sëñ Modou waaw sëñ Modou jaxate ngeen ànd hmm. dama wax ko sëñ Saliou ndax booba sañ sañuñ koo denc maanaam woy juróom bu jigéen soxna Fat Ñang te sëñ Saliou yëgu ko keroog lañ njëkk dem jàppandal ma demee jàppandal ñoo ko yëgal sëñ Saliou ndax dañoo njëkk ñëw ci këram gi fii ñu ne ma nga jàppandal keroog laa njëkk dem jàppandal ci ndigalu sëñ bi ñu yëg leen maanaam soxna Fatou Niang moom nga xam ne moom lay wax bokk gi nga xam ne bokk na ko Sénégal yëpp ñu war koo denc ginnaawam itam fàttaliku bi muy fàttaliku mooy tàggu bi ñuy tàggu nga xam ne jamono wéra dem gi woo na ma ne na na ñëw ndax dama ko yittewoo wax na ma jóge jóge gi ma ko joge ba ma ñëwee juróom benn fan la teg mu wàcc liggéey te keroog ba nga xam ne bi maanaam ma ngi dugg ci këram sëñ Mourtalaam sëñ Fallou mu ne kii de mooy néegu mooy moo desoon ci néegu ndeyu suñ Tuubaa kon maa ngi siyaare waa Mbuso bi ñëpp ndax ñoom ñooy ashabul janna mhm. sama sëriñ moom waxoon ne am na ndigalu waxtaan def conférence ndax boobu at moom dañu def conference amuñu conférence yi waaye ci la ma solee xam-xam boobu ba nga xam ne saa yu ma tàmbalee waxtaan man duma xam sax maanaam bayit yi fu may jógee mhm. di wax maanaam baatin bi nga xam ne nekkoon na ci moom boole na ak moom di xam ne <clears throat> jëmm ju baax a baax la woon jëmm ju woyof la woon ñun ñi nga xam ne ay taalibeem sax dañoo defoon ay kal ngir ngir ñu ñeme ko rek fu mm-hmm. nekk fekk na fa ab taalibeem dox nag ay tànkam ay kilomètres ngir seet si ñu mm-hmm. maanaam ku <clears throat> ku woyofoon la te noonu la amoon baatin waaye nangoo wàcce boppam lool woyof lool bëgg bokk yëpp Tamba gi mu nekkoon nag ñun ñoo ngi jokkoom ci moom 1969 suñu mag da naa di suñu tawu baay 1959 la jokku ci moom kon ñun ñi nga xam ne ñooy ay taalibeem euh, fekk fi itam ñi nga xam ne faw ñu fàttaliku leen mooy suñu Abdouloo mi nga xam ne fekk na ko Tamba te sëñ Balla ay sa kan wax ko maanaam luween ñi nga xam ne euh, àndoon nañu sëñ Ibrahima Bousso di fàttali itam sëñ Ibrahima Bousso mooy daan wax ne li mu mujj bind mooy kunu ko a Ibrahima Fall maanaam mooy taalibe googu ñoom dañoo jaay seen jureel yëpp jëndee ko taalibe te ni ko sëñ euh, euh, sëñ sëñ Markan waxee maanaam mbokkum Sénégal ñëpp la kon nag maam bis bi ñoo koy euh, ñoo ngi ko ñoo ngi ci ndokkeel bu baax sëñ Modou ndaxte maanaam nekk tout tànk taxula maanaam ñàkk jom taxul ñàkk pësteef te pësteef maanaam mooy lépp te moom sëñ sëñ Balakan wax na ko pësteef bu wér a wér la wane fi moom sëñ Modou ndax maanaam boo sosee lu baax ku la ci roy rek dañ ci da nga ci am tiyaabo te ñii ñu ñu ku nekk mënoon na ko màggal te yaa yaa ci juddu kon su mborom yow la ko jagale kon ñoom la ci ndokkeel bu baax te itam bu leen ñu fàtte ci ñaan ñu nekk ay taalibe sëñ Touba taalibe ñu nangu suñu taalibe te am taalibe ñoom ñëpp mag ñëpp loolu lañu doon xeeñ dañoo jaayoon seen njuréel ak seen lépp jëndee koog taalibe te xam ne taalibe rek waaw waaw suñu Abdou Kabe mi nga xam ne itam daaw ndeysaan ba ñu def kii euh, waaw maanaam ba nga xam ne ñoo ngi def màggal gi moom fekkee na ko ba itam buñ ko fàttee nañ ko ñaanal bu baax a baax a baax waaw da daaw jël na fi kàddu seere ci sëñ bi seere boo xam ne wax dëgg yàlla dama ne mënu woon ñàkk daanaka daa daa jàll rek mu wàccu liggéey ab tàggatoo la woon waaw léegi nag ñoo ngi ñaan su ngeen jégal ñu ci kàddu yi lépp lu juum ci ñun la waaye du ci ki xam ne ki moom la ñuy waxal wax jooju te yàlla tax muy sëñ muy sëñ Tamba ngeen ñaan bu baax yéen si ngeen kilifa yi ñoo ngi jégalu nag toog bi ñu toog ci kaw ndax waruñu wax dañu war saa su nekk seen seen seen seen keppaar ndax ngeen xool ñu seen bëti yërmande yi nga xam ne maanaam mooy jëriñ jariñ bi moom bëti yërmande sëriñam rek moo koy jëriñ te kooku nag ci taalib rek lañ ko mën a maanaam wàcc sa bopp ñoo ngi jégalu bu baax di siyaare ñëpp minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa uxra minal karbi sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mboolem ñëpp ñi fi teew rek di jiital ci nuyoo boobi Cheikh Mouhamadul Mountakha ak mbooleem njabootuk Serigne Touba gépp ak ñoom ñi nga xam ñoo ñoo nekk ci ginnaawam bokkoon di liggéeyal ci Serigne bi liggéey bu rafet. ak mbooleem soxna yi nga xam ñoo àndoon ak Serigne Alhaji Boussa Tamba. ak doom yeeg. ak sët yeeg ñëpp ak taalibe yi. nee na mi ngi leen nuyu bu baax. di nuyu ñi nga xam ne ñoom teew nañ ngir jëmmi bis bi rek tax. ak ñi nga xam ne amoon nañu yéene teew ci bis bi nee na mi ngi masawu ñëpp coono yi toggoo ci tàngoor wi ak yitte yu bari yi ak soriwaay beeg lépp nee na lépp ngeen bàyyi ko ñëw wuy si woote bii nee na jëmmam ji taxut jëmmi sëriñ bee tax waaye bu doon moom bu wootee xañ na mën nañu wuy si waaye mën nañu wuy waaye sëriñ bi rek leen ñoo tax ngeen wuy si ko nee na jëmmam ji xam nga ne am na solo waaye nag boo wootee bu sa daan wuy si nee na waaye mi ngi masawu ñëpp te leen jéggalu ci coono yi ngeen toggoo ba ñëw fi tey nee na lii ak fàttali ko rek la akuk ñaan waajur woo xam ne seen borom bi tabaaraka wa taala moo leen ko digal. ñu topp leen ci biñ fiy nekk. biñ fi bàyyi koo dem àjjanaat ñu topp di leen ñaanal ak den fàttaliku. nee na dafa am nit ku baax koo xam ne dafa mas a wax ni. koo xam ne dangay ngay wuyoo aw santam. koo xam ne da wuyoo aw santam. mu lay dundal. mu lay dundal. mu jóge fi ñu jaale la ko nga lekk njaal moom. mu jóge fi ñu jaale dëkk ab gentam. ba wal noppi wëlbatiku dëkk ab gentam. noppi yóbbu ko ca barab ya. ba pare noppi yóbbu ko ca barab ya. ba pare fàtte ko loolu du wàllu gor. nee na loolee moo waral lépp muy saytu lool ak bëgg rek ci xéewal jot sëriñ bi. nee na rawatina nag muy waajur woo xam ni. waajur bu baax la xam ne dafa bokk fu waajur bu baax la bokk ba bokk fu baax. ñu baax ñi ñëpp bëggoon ko. ba noppit sawaroon ci moom. nee na mi ngi koy tàmbalee ci sëriñ Touba mu baax ma ci boppam. Serigne Touba dafa sawaroon ci ay maamam. sawar ci ay waajuram. doomi Serigne Touba yi itam ñëw sawar ci moom. doomi Serigne Touba yi maaseel fekkee jamono it sawar ci moom. nee na kon ku mel noonu. boo ko amee. faaw li la war mooy nga sawar ci moom rek. nee na loolu rek mooy sabab si. nee na kon ñi ngi sant bu baax. di gërëm tey ñaan. lépp loo xam ne daal yéene ko nee na lépp loo xam ne am na ko yéene ci bis bi. mi ngi ñaan suñu borom mu nangu ñaan yëpp ñaan gu ñaan yàlla suñu borom nangu. nee na mi ngi ñaan ñaan gun fi ñaan wala lu fi jàng alxuraan kër yàlla ko Serigne Touba ak suñu borom nangu. te yool bi mu fekk ko fa mu nekk. te yool bi mu fekk ko fa mu ne. sunu borom dolli ko ay xéwal bu baax a baax. koo xam ne mbokkum Sénégal koo xam ne mbokkum Sénégal gépp nga woon. mbokkum ñu baax ñëpp. ñi bëggoon Serigne Touba ñëpp bëggoon ko ngir jëmmi Serigne Touba. nee na ku mel noonu jar naa fàttaliku te di ko ñaanal. waaw soxna si ma ngay ñaan. waaw nee soxna si nee nga ñaan. amin amin barke Sëñ